الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من سرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يدلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا بلغ رسالة القرآن وأدى أمانة البيان ونسح الأمة ومهوى الظلمة وكسف الغم عن هذه الأمة وتركنا على مهجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا حالك فصل اللهم وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين عباد الله mbokk yi ci yàlla tabaraka wa taala ginnaaw bu nu tàmbalee ci sunu turu boroom noo ngi ñaanal sunu yonentu muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam yal na ko yàlla dolli xéewal te musal ko ginnaaw loolu mbokki jullit yi sunu xutba tey mooy wasiyatul malik mooy ndénkaane buur bi ci jamono dafa am benn buur ci buur yi mu bëgg a jàngale walla mu doon rëccu ñaar yooyu rekk moo fi nekk nga dund àdduna jëriñoo sa xel jëriñoo sa ngëm yàlla bi nga demee ba toll ci di waaj di génn àdduna nga def ndénkaane pour jàngale walla nga dund àdduna fowe sa xel topp ci àdduna yi daw bi nga ñëwee dara desul lu dul yaa ngi jàkkaarloog dee nga jàngale jàngale gu njëkk gi jàngale la pour nit ñi jëriñoo ko delloo ci seen xel xam ne ku jaamul yàlla perte na jàngale gu mujj gi tamit jéem a wax ñi nga xam ne ñoo topp ci àdduna yi daw ndeke àdduna amul njëriñ amul importance buur bi kenn la ci ñooñu nga xam ne dund nañ seen àdduna ba dee dikkal leen ñu jàngale moom buur bi bi ko dee dikkalee fastadaa qaida ju yuusi yuusihi bi salaasin bi ko dee dikkalee moom buur bi daawoo ki jiite woon armée bi ki jiite woon soldaar yi su daan xare ki jiite xare bi kooku la woo ne ko dama laa bëgg a dénk ñetti ndénkaane alwasiyatul ula ndénkaane gu njëkk gi ginnaaw ba ko waa ji laajee ne ko ndénkaane yooyu nga ma bëgg a dénk yàlla mu ne ko ndénkaane bu njëkk bi an laa yaxmila naashi inda dafni illa al atibba wala gayrahum su ma faatoo ngeen defar ma sang ma sang ma ba yeew ma jullee ma ngeen ma war a yenu yóbbu ma ci armeel yi li ma lay wax mooy kees gi ak li ko wër ay docteur dong nañ ko laal na ñi ma yóbbu ci armeel ya ñi yore kees gi nga xam ne ñoom dong ñoo koy jàpp na nekk ñépp nañ nekk ay docteur ku dul docteur daal bu mu laal kees gi loolu mooy ndénkaane gu njëkk gi ko ñaareelu ndénkaane gi alwasiyatu saaniya an yansura fi tariqi makaana mawti hatta almaqbara qita'u alzahabi walfidda wa ahjaari alkarima allati jama'tuha tilata hayati ñaareelu ndénkaane gi mooy bu ma faatoo sama kër walla fiñ may jullee di ma yóbbu armeel ya mbooleem alal bu ma mës a liggéey muy xaalis walla muy jama walla muy or walla muy zirko mbooleem xeer bu am importance boo xam ne jëndoon naa ko ci sama dund muy lu cher nañ ko sotti ca fañ ma jullee ba ci armeel yi nit ñi di dox ci kawam bu kenn dox ci suuf si na ñépp dox ci kaw or bi ak alal ji ba egg armeel ya alwasiyatul axira ñetteelu ndénkaane mu ne indama tarfauna ni fi nashi axriju yadayya min alkafni wa absituhuma xaarija bu ma faatoo ba gaa yi may sang ñëw sang ma ba pare buñ may sang perkaal yi sama loxo yi nañ ko génne ci biti bu ko kenn boole ci biir perkaal bi nañ ko génne loxo yi daal di tàlleeku ci biti ñaari loxo yépp même buñ ma tegee ci kees gi sax ñaari loxo yooyu na génn ci biti ñaata ndénkaane la mbokk yi ñetti ndénkaane ndénkaane gu njëkk mooy suma faatoo ñi may yóbbu kees gi na ko ay docteur kese yore ñaareel bi mooy fin may jëlee di ma yóbbu ci armeel ya nañ ci sotti lépp lu ma dajale woon ci or ak xaalis ak urus ak bépp per boo xam ne bu am importance la nit ñi di ci dox bu kenn dëgg ci suuf na ñëpp dëgg ci kaw alal jooju ba ñuy yegg armeel ya ñetteel bi mooy samay loxo nañ ko génn ca biti bu ko kenn dugal ci biir kees gi ñetti ndénkaane bi mu ko waxee ba pare ndeysaan moom buur bi qaala lahu qaidu juyush sanunaffiz wasiyatak lakin mal maxza min zalik buur yow xam nga ne bi ngay dund bépp kàddu goo mës a yëkkati exécuté nañ ko jëfe nañ ko rawatina nag tey ngay génn àdduna waaye yow sama buur bii lan moo wundu ban njëriñ moo am ban importance moo am ci ndénkaane gi ngay dénkaane ñun kat dañoo xaw a jaaxle ndax sa ndénkaane bi kat musuñu koo dégg ci àdduna sa ñetti ndénkaane yi musuñu koo gis waaye yow loo ci jublu radda alayhi uridu an utiya alaalama darsan lam afhaqu illa al an yow général bi yow sama loxo ndeyjoor sama bras droit dama bëgg a jàngal àddina bi benn dars boo xam ne maa ngi koy doog a dégg tey bii may waaj a dee laa doog a dégg dars boobu allahu akbar xoola ku dund nekk buur dund ay at yu dul jeex lu nekk nga def ko ci àdduna teraanga bu nekk wër la ñu ne la yaa moom dëkk bi léegi gars yi loolu la ñuy tiitaroo dëkk bi diwa ko moom ana diw moom moom dëkk bi dégg naa sax chrétiens yi ndeysaan dugg na ci naan dëkk bi Jésus ko moom ana Jésus nit dina moom dara ba pare dee bàyyi ko fi ah nga dee bàyyi fi say soxna bàyyi fi sa kër bàyyi fi say doom bàyyi fi say oto bàyyi fi bàyyi fi bàyyi lépp loo moomoon nga dee ñu yóbbu la bi ci suuf si suul la gas ba mu xóotu suul la ñu ne yow yaa ko moom ah kay moomu doog suuf si yàllaa ko moom xéewali ci suuf yàllaa ko moom moo koy wàcc waaye gis nga pas-pas yi bu yàqoo nit ñi bu seen ngëm yàlla yàqoo ci la seeni kàddu di yàqu parce que xol yi ñooy yàqu dama bëgg a jàngale dason boo xam ne fii ma tëdd ci lalu dee laa ko doog a dégg jàng naa ba sonn am naa xam-xam am naa alal am naa lépp waaye dars bii day maa ngi koy doog a dégg tey leçon bii tey laa ko comprendre moo tax ma bëgg koy jàngalee amal ula bu dee ndénkaane gu njëkk gu ma la waxoon ne lan laa la waxoon sax mu ne ko boo deewee kees gi na ko ay docteur rek jore ay docteur dong nañ ko wër ba ba ñuy yegg armeele bu kenn ku dul docteur bu mu ko laal mu ne amal ula bu njëkk boobu fa aradtu an yacrifa annaas an almawtu ida hadara lam yanfa fi raddihi hatta al atibba dama bëgg a xamal nit ñi bu dee dikkee su la dee songee bu la dee jàppee kenn mënu ci dara même docteur yi sax mënuñ ci tus ndax tey ku feebar foo jëm ku feebar foo jëm hôpital hôpital ñen ñoo fa nekk du docteur yi kon tey docteur yi bu ñu mënoon dara maay buur bi maa ngi nii dee ñoom ñoo ma yore di ma yóbbu munuñ ci tus kon loolu na leer ñëpp allahu akbar hatta al atibba nahrau ilayhim ida asaabana makruh waaye wa anna sixata wal umr nicmataani la yamnahuha ahad min albashar maa ngi bëgg a xamal nit ñi ne wér gu yaram dund ñaar yooyu wér ak dund ay xéewal loo xam yoo xam ne benn doomu aadama mënu koo maye kenn mënu laa may nga wér kenn mënu laa may nga dund loolu ci loxo kan la nekk ci loxo yàlla moo tax Ibrahima mu ne yàlla maa ngi dellu ci yow ndax yow wa iza maritu fa huwa yashfini su ma feebaree yaa may faj allahu akbar ndeke même garab yi ñuy naan dama nga jëndal ma ordonnance ndeke ordonnance yi sax tus lañ mënut docteur yi dana la dara lañ mënut inna tabiba bi tibbi wa dawaa'i la yastatiu difaa makruh gis nga docteur bi li muy foor foor foor foor li muy jàng jàng jàng li muy mën bu la yàlla tegee nattu docteur bi mënu ci dara day ñëw nag def li mu jàng day ñëw def li mu jàng li mu xam waaye wér ak dund yàllaa ko moom moo tax mu ne maali tabibi yamuutu bi daa illazi qad kaana yubri u jarhahu docteur baa ngi nii tey di dee xam nga docteur bi lu ko rey feebar bi mu doon faj démb ci waajee ba mu wér feebar boobu moo ko rey kon docteur bi tax fajul boppam wala docteur du dee docteur du dee docteur baa ngi nii tey di dee ci feebar boo xam ne démb moom la doon faj allahu akbar zahaba al mudaawi wal mudaawa ki doon faj ak garab ga yépp wallazi jalaba dawa ak ki defar garab gi wa baahu ak ki ko doon jaay wa man ishtara ak ki ko doon jënd ñoom ñëpp dee nañu ki defar garab gi dee na ki jëndi woon garab gi day dee kiñ doon jëndal garab gi dee kiñ doon ki doon ki leen doon jëndloo garab gi dee ñoom ñoom ñu dee bàyyi fi garab gi kan du garab gi kon kan la allahu jalla jalaaluhu kon buur bi jàngale na dars boo xam ne na leer ne du docteur na leer ne du garab na leer ne du kenn kan la allah jalla jalaaluhu wa azza kamaaluhu mbokki jullit yi ñu ne ko ñetteelu ndé ñaareelu ndénkaane mu ne an yaalama annaas anna waqtu anna waqtan qadaynaahu fi jam'i almaali laysa illa habaan mansuur ay waay waay waay waay waay waay waay lan laa waxoon ci ñaareelu ndénkaane bi gars yi ne ko dañu ñun dañu ne da nga ne fi nga deewee ba armeel yëpp nañ ci sotti sa alal nit ñi nañ ci dëgg ba yegg loolu na mu ci loolu mu ne na nit ñi xam waxtu bi ma doon passé ci wut alal ndek alal jaa ngi nii tey jëriñu ma dara maa ngi nii di dem lan la yonente bi alayhi salaatu wasalaam wax yatba'ul mayit salaasa wa yarju isnaani wa yabqa waahid ku dee ñett ñoo lay gunge sa alal say mbokk ak sa jëf sa alal fu mu yem ci buntu kër gi yére yi dañ koy simmi tekki montre bi tekki jaaro yi simmi mbaxna bi simmi dàll yi simmi lépp daal lay laxas benn sër daal lay génne kër gi lan moo la topp lu la topp dara buñ demee ba sax morgu ba yenn saa yi am ku ne paa bi dafa takkoon ba ñu or ñu ne ah nañ ko dindi kon gis nga lépp la ñuy dindi alal ji sax ci buntu kër gi lay yem dara du la topp say mbokk ñooy ñëw ñaareel bi ñoo lay dugal ci morgu bi sang la ba nga set sang la yeew la ba mu dëgër julle yóbbu ba buntu armeel yi gas ba mu xóot daan na yàlla moo ngi ni ñun ñoo ngi ñibbi ñoom ñoo doon ñaareel ñu la doon gunge ñoom ñëpp dem nañ alal ji bañ naa ñëw say mbokk bañ nañoo dugg ci armeel bi wéttali la ku des sa jëf moo tax yonent bi alayhi salaatu wasalaam ne mbiri kat seen jëf la innama hiya amalukum uxsiha lakum seeni jëf la yéen a koy jëf man yàlla maa koy bind ku dem ba alaxira fa man wajada xayran falyahmadillah wa man wajada gayru zalika fala yalumanna illa nafsa ku dem ba alaxira fekk fa jëf ju baax santal yàlla ku fa fekk safaan bul yedd kenn yeddal sa bopp yàlla ne man kaana yarju liqaa rabbihi falyamal amalan salihan amal salih amalun saalih képp ku mu leer ne bëccëg a ngi ñëw da nga dajeeg yàlla na nga jëf-jëf ju baax yàlla wax ci suratul mulk li yabluwakum ayyukum ahsanu amala yàllaa leen natt pour ana kan ci yéen moo gën a rafeti jëf ndeke li tax ma ne na ngeen sotti alal ji ñuñ ci dëgg ba ca armeel ya mooy yëg nit ñi nañu yëg ne ndeke alal ji amul njëriñ maa ngi nii tey dee lan laa yóbbaale ndeysaan benn milliardaire sénégalais dafa dee ñu jox doom ji 10 000 ñu ne ko demal nga jënd lu ñuy waajale sa baay 10 000 lañ ko jox mu ne bi ma demee ma indiwaat weccit mu ne dama ma xam ne aduna du dara sama papa milliardaire la kenn joxuma million kenn joxuma cent mille kenn joxuma cinq cent mille kenn joxuma cinquante mille dix mille lañ ma jox naa dem jëndi lu ko yóbbu te indi naa waaj weccit allahu akbar dix mille nga jënd ci perkal jënd ci witeen jënd ci parfum jënd ci saabu jënd eau de javel jënd gant jënd cuuraay jënd saabu ordinaire boo yóbbee cinq mille sax nga indiwaat weccit cinq mille kon lu ñuy daw lan la loolu laa leen bëgg a xamal ndeketey li ma doon daw yépp di topp alal ji laysa illa haba an mansuur moo ngi nii tey ndeysaan dara topp ma maa ngi nii jëm ci sama boroom wa annana lan naaxuza maaha shay dara duñ ko fi jële yóbbu alaxira dara allahu akbar moo tax ci suratul humaza yàlla naan am na ñoo xam ne jamaa maalan wa addada yaxsabu anna maalahu axlada am na ñoo xam ne ndeysaan dañu jàpp rek di dajale dafa ne seen alal dina leen teree dee bu dee dikkee ñu bàyyi ko fi ay ndono waaw moo tax nga ku dee nga dégg xale bu góor dañoo ne paa bi góona quoi paa bi góona temps yi affaire bi rek laay xaar waaye bu ma ko jotee rek daal di góo quoi gàlle bi laay xaar quoi gaa yi yëngal ko quoi bu ko gaa yi yëngalee rek ma jël sama moonin quoi daal di góo ana paa bi lu mu ci moom gis nga moo tax ku am sa alal jaamu ci yàlla balaa dee dikk buur bi wane na ko de yaqulu ahlaktu maalan lubada a yaxsabu an lam yarahu ahad ne saa yi nga gis koo xam ne alalam yëpp ci caaxaan yi la koy def waaw alalam yëpp ci musiba boo xam ne du jëriñ lislaam foofu la koy dugal du dimbali miskin du defar jàkk du bënn teen du defar daara du jënd ordonnance ku feebar dara business rek caaxaan rek musique bu jóg mu financé mbon gu jóg mu financé alalam yépp ci mbon la koy dugal jamais mu def ci lu baax ñu ne ko ñetteelu ndénk mu ne amma saalis fa yaalamu nnaas nit ñëpp nañu xam ne annana qaddamna ila hadihi dunya faariga al aydi wa sa naxruju minha kadalik ñu ne ko lan moo tax nga ne boo dee nañ génne loxo yi ne dama bëgg nit ñi xam ne bi ñuy ñëw ci àdduna ndax indaale woon nañ dara ñu ne ko déedéet mu ne dama bëgg nit ñi xam ne bu ñuy dellu tamit duñ yóbbaale dara ni loxo yi ñëwee woon yàlla wax ci alquran walaqad jitumuna furada kama xalaqnaakum awwala marra wa taraktum ma xawwalnaakum waraa zuhurikum wama nara maakum sufa'aakum allazina zaamtum annahum shurakaa'u laqad taqatta'a baynakum wa dalla ankum ma kaanu tazumun borom bi ne bi ngeen di ñëw ci àdduna cundung ngeen ñëwee woon cundung yére sax soru leen ko kenn ci ñun bi muy génn ci way juróom bu jigéen di cëppeelu ci àdduna lan la soloon trois morceaux loo soloon dara topp la cundung yàlla nee na bu ngeen di génn àdduna noon ngeen di génne àdduna allahu akbar bi ngeen di ñëw kenn kenn ngeen ñëwee woon furaada kenn kenn mu ne bàyyi ngeen wa taraktum ma xawalnaakum wara zuhurikum bàyyi ngeen lépp lu ngeen doon dajale ci àdduna bàyyi ngeen ko tey seen ginnaaw yéen a ngi ñëw ndeysaan ci man dara indaalewu leen ko dara waaw man yàlla sama mbir mooy wama nara maakum sufaakum ñi leen tere woon jaamu yàlla naan leen garaawul àllaaxira buñ nga buñ ñëwee dinañ rek li lépp yàlla nee na ana ñooñu ñu bëri nag dinañ wax ne xanaa kii diw lay wax déet alxuraan moo ko wax de mu ngi ni aaya baa ngi nii wa ma nara maakum sufaakum allazina kuntum tazumun kuntum zaamtum annahum fiikum shuraka yéen yéen a waxoon ñii kat buñ jaamu yàlla buñ demee àllaaxira yéen ay taxawkaay yéen ay avocat yi yéen a leen di ramm yàlla ne ni waaw kooku waxoon la bul julli moo lay ramm yowmal qiyaam yàlla ne gisuma ko anamu eh yow ana diw du moo la waxoon bul ma topp nga topp ko léegi moom anamu nga ah yàlla moom bàyyi naa ko àdduna de yow léegi boo ko bàyyee àdduna nga ñëw àllaaxira xanaa bu fekkoon ne foofu dañ lay dóor ay bant bale sax balaa waa ji ñëw nga dee waxuma laak nag ay mbolde lan lay wulli waxuma laak jahannamaa ngi nii waxuma laak zabaniya yaa ngi nii yàlla ne sa nadu zabaniya su ma nee malaaka yi jàpp leen ko Ablaye ibnu Abbas nee na bu yàlla ne malaaka yi xuzu jàppale leen ma waa ji mu ne soixante-dix mille malaaka ñoo lay jiiroo soixante-dix mille malaaka fan la xëcc ci benn doomu aadama yàlla nee na ana ñi leen waxoon dinañ leen ràmm allazina zaamtum annahum fiikum ñooñu ngeen yaakaaroon ne ñoo ngi ànd ak yéen surakaau danañ leen jàppale danañ leen teq xettali ñooñu ana ñu tey gaa yi na patt nopp yàlla mu ne wala qad laqad taqattaa baynakum seen diggante dagg na ñooñu ñu ngi àdduna yow yaa ngi àllaaxira diggante bi dagg na amatul jokkoo allahu akbar mënatoo jokkoog ñooñu lu tax moo tax war nañoo yeewu mbokk yi utiliser xel yi doomu aadama taxaw di tere doomu aadama moroomam naan ko bul jaamu yàlla nekkal ci lii rek lii moom boo ci dee rek boo ci dee rek di- di- dina sotti nga bóorgóor nga dem fàtte yàlla nga topp kooku nga bàyyi li la yàlla wax léegi nga dee moom amul lu mu def lu dul mu ñëw gas ba mu xóot suul la daal di ñibbi léegi lu mu xamante ci yow loolu wóorul sax loolu dafa wóorul sax taxawal fii nga xaar ma rek wóorul waxuma laak nag ñëw ba la ba ci armée yi gas ba mu xóot suula yàlla mu ne laqad taqattaa baynakum seen diggante dagg na allahu akbar amatul jokkoo wa dalla ankum ma kuntum tazumun yàlla nee na yooyu ngeen doon wax ci àdduna seen caaxaan yooyu ay nangam ak nangam maa fi nekk maay borom mbir mi ana jo di diw dee ñu ne ana diw jox nañ ko diw jox nañ ko diw jox na ko diw jox na ko yonent bi dugal na ko àjjana seen yomb yooyu ngeen doon wax yàlla mu ne yooyu ngeen doon wax amul fii yooyu des na ci àdduna fii maa fi nekk te maay buur bi dund te duma dee allahu akbar yooyu jeex na ndeysaan buur bi jàngale na mbokk yi ndénkaane yoo xam ne buñ ko déggoon sunu àdduna day jag sunu àllaaxira jag buur bi wax na leen ne ndeke docteur ak garab dara la mënul ci dee buur bi wax na leen ne ndeke alal loo ko am am am am du la teree dee buur bi wan na leen ne sooy dem àllaaxira doo yóbbaale dara ndax loxo yaa ngi nii mu génne ca biti aqulu qawli hada wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwa alghafuru rahim الحمد لله وحده ولا نعبد غير مخلصين له الدين walaw kariha alkafirun ibadallah يقول مولى تبارك وتعالى في حديث القدسي يا ابن آدم أتدري ماذا يقول لك ملك الموت وأنت ناعم على خصبة الغسل بك جلدي صلى الله عليه وسلم وانا ci hadisul kursi nee na yow doomu aadama est ce que xam nga boo faatoo ba ñu teg la ci jaag ji di la yóbbu bañ la sangee ba pare ba teg la ci jaag ji di yóbbu est ce que xam nga yow doomu aadama lan la malakal mawti di wax ak yow yunaadi alayka wa yaqul ya bnu aadam ayna sam'uk ma asma'ak doomu aadama day fekk malakal mawti day fekk doomu aadama fi mu ne las ci jaag ji ñu tëral ko léppam tàlleeku jub kocc lépp ñu tàlli ko ba mu tàlli takk ko ba mu dëgër malakal mawti fekk foofu doomu aadama ne ko yow doomu aadama ayna samuka ana say nopp ayna samuka loo doon déggee ci àdduna anamu ana say déggkaay ndax yaa ngi doon dégg ci àdduna moo tax waa safara bu ñu duggee safara li ñuy njëkk a réccu mooy biñ nekkee ci àdduna daawuñu dégg ci suratul mulk wa qaalu law kunna nasma'u aw naqil ma kunna fi ashaabi sair allahu akbar oy wooy nun wooy biñ nekkee ci àdduna bu fekkoon ne doon nanu dégg law kunna nasma doon nan dégg li ñu doon wax aw naqil wala ñu doon utiliser suñu xalaat di suñu xel yi kon tey maa kunna fi ashaabi sair kon tey dunu dugg safara kon lan moo yóbbu nit ñi safara mooy bañ a dégg xel yi ñu yàlla may bañ cee xalaat xel ak dégg lu muy jëriñ lépp loo xalaat lépp loo dégg nga xalaat ci lépp loo dégg nga xalaat ci waaw lépp loo dégg nga xalaat ci allahu akbar diw Muhammad moom xam na ne mooy Muhammad yàllaa ko yónni loolu leer na yàlla moom xam na ne mooy yàlla waaw loolu leer na waaye diw mi sàmba mi moom lañ xamul moom mooy kan moom moom mooy kan ndax moom mi moo tax yàlla nekk yàlla moo ko dimbali ba mu nekk yàlla ah Muhammad mi tamit moom moo ko dimbali mu nekk gën gi mbindeef loolu lu ko nit di waxe loolu naka la ko ab julli di gëmee diw moo dimbali yàlla yàlla nekk yàlla ana diw moomu dimbali woon yàlla dee na ki ko dégg moom du xalaat waaw gars yi sax nee nañ séeréer bi bu muy tuub ñëw ci sëriñam sëriñ bi ne ko àllaaxira dinaa la yóbbu àjjana mu ne ko jërëjëf mu jël dugub bi mu bayoon yëpp jox ko mu dem ba ci ba ci biir mu tourné waat mu ne sëriñ mu ne ah mu ne ko ca àjjana nga may yóbbu mu ne waaw mu ne bu ma la njëkkee dee nag kan moo may jox caabi ji mu ne ma jox la ko nga yóbbaale mu ne yow soo ma njëkkee dee fan laa lay fekk sëñ bi ne pat mu ne ko xam nga lu wóor nga jox ma caabi ji ma dugal sama poos wala nga delloo ma sama dugub ma ñibbi kooku sax muus na naa la jox caabi àjjana rek naa la dugal àjjana te kenn doxul a caabi xamoo àjjana fu mu nekk moom miy wax àjjana xamul fu mu nekk mbokk yi buur bi jàngale na waa safara bu duggee safara lu ñuy rëcc mooy law kunna nasma cay ñun buñ doon dégg aw naaqil wala sunu xel yi ñuy xalaat suñu xel yi ñuy xalaat kon maa kunna fi ashaabi sair kon tey dun dugg safara benn buur dafa woo waa dëkk bi xale yépp ñëw mu ne seen papa yaa ngi dund ñu ne waaw mu ne dem leen ngeen rey seen papa yépp xale yépp dem rey seeni papa ba mu des benn xale mu jël papaam nëbb ko ñu ñëwaat ci buur bi buur bi ne ana seen papa yi ñu ne ko gaa xale yi ne ko ñun ñëpp rey nañ suñu papa mu ne kenn desul ñu ne déedéet waaw mu ne benn mag bu mu des ci dëkk bi mag ñëpp nañ leen rey gars yi ne ko rey nañ mag ñëpp paa yëpp rey nañ leen mu ne waa léegi nag damaa bëgg géej gee ngeen tabaxal ma fi benn étage wala yéen ñi ñëpp naa leen rey dem leen ngeen xalaat ci ngeen ñëw xale yi dem ah ku ñuy waxtaanal ku nekk rey nga sa pap xale boobu daal di ñëw ci papaam ne ko pap buur bi de nee na nañ tabax ci géej gi étage wala ñun ñëpp danoon rey mu ne boo demee nga ne ko na la defaral plan ci géej gi bu la defaree plan ñu tabax ko mu ñëw ni buur bi laaj leen ne leen indi ngeen résultat ñëpp ne pat mu yëkkati loxo buur bi ne waaw yow mu ne defaral plan ci géej gi ñu tabax ko mu ne ko yow reyoo sa pap waaw yow rek yow sa papa yow sa papa ngi dund xel day xalaat nopp day dégg waaye xel mooy xalaat li nopp di dégg ku la bàyyiloo jaamu yàlla tooñ na la mbokki jullit yi bu nu jullee ba pare ci kattanu borom bi am na sunu benn mbokk bu jigéen buy dugg ci lislaam boo xam ne nasaraan la woon di dugg ci lislaam xissaam nag li ko ciy dugal ci islaam mooy ndeysaan dafa am ku ko doon jàppale ne ko dama bëgg nga tuub di waxtaan ak moom ba benn événement am ci Sénégal mu ne ko foofu soo fa demee islaam rek moo fa nekk doo gis ku xeesal doo gis ku meesu doo gis doo gis ñëpp dañoo muuru ndeysaan jour ba jot ndaw si ànd ak moom ñu dem ba yegg bi ñu wàccee première oto bi mu gis ñu xeesal ak ñu meesu mu ne ko waxoo ma woon lii maa ngi ñibbi man lislaam laay wër waxoo ma woon lii da nga ne ma woon fii du ma fi gis ku def bopp neen fii du ma fi gis ku meesu mees yaa ngi nii man maa ngi ñibbi looloo ko indi ci ñun pour mu tuub bu ñu jullee ba pare incha allah ñun ñëpp ñu bañ a dem xam ngeen li yonent bi digge ci ku tuub ak lim ci wax ñu ñaan yàlla tabaraka wa taala mu may nu nu màng xéewal yooyu ñu fekke ko allahuma ya haadi ihdina siraat almustaqim siraat alladina anamta alayhim min annabiyin wa siddiqina wa sohdaa wa salihin غير المغضوب عليهم ولا دالين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم يا مثبت القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك اللهم يا هادي اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين غير المغضوب عليهم ولا الضالين عباد الله قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله